Jean Fall instituteur président bureau de vote numéro 11 du centre Omar école Omar Gueye Nous euh, nañ fi le matin pour euh, dérouler les élections présidentielles du 24 février donc euh, depuis 7 h du matin le bureau les membres du bureau sont présents installés matériel électoral lui, à 8 h plus, nous démarrer l'opération. donc si bureau de vote il y a 600 il y a 600 électeurs donc nous avons voté sur si bureau bi ni donc euh, nombre d'inscrits c'est 600 donc pour le moment euh, y a un jaar euh, tout se passe bien tous les membres du bureau de vote sont là les représentants du CD sont là le CEDA est là donc tous les représentants de de nous candidats et nous sauf euh, le candidat m'a dit que m'a dit que mon fi mon fait quoi mais tout se passe bien euh, alhamdulillah di nuyu wa Mbour d'abord di leen ziare ah di leen xamal ni daal vraiment affaire bi euh, depuis sa matin nii ñaa ngi ci jàmm li may gën a jaaxal nag bu yoon dañoo teel a ñëw te yaakaar naa ne daal euh, taux taux de vote bi dana euh, gën a rëy léegi nag li ñuy ñaan rek mooy lii xam ni tàmbal nañ ko mu continuer ci jàmm ndax daal gisuma fi benn coow waaw nit ñi daal soo ba léegi ñu ngi wote coow amul dara amul rang bi rang nañ ko normal. amul benn incident ñun nag li ñu ci doon intervenir rek dañoo bëggoon yenn saay xale yi may mag ñi ñu jàll ndax mag ñi toogaay bi dafa yàgg heureusement ñu bari comprendre nañu loolu mag ñi dem nañu voté dem ñibbi parce que rang bi dafa gudd nag pour te dire que rek euh, tey jii yaakaar naa engouement bi engouement bu populaire la ñëpp a jóg teel a yow teel a ñëw ñu ngi voté ci jàmm ba léegi daal euh, man jaar naa ci centre de vote yu bari mais benn problème rek moom la ñuy wax ne bon ci représentation kii euh, bureau de vote yi mais amul sax problème ndax boo ñëwee ci représentation bureau de vote yi faut nga laaj ñi représenté parti yi. mais seetlu nañu daal bon foo dem de kii manqué na fa trop euh, parti kii ma dikkee manqué na fa bon xamuñu lu tax mais nag bon fii li ci des daal amul problème. bon ñëpp a ngi ci jàmm ñu ngi voté normal bureau yi sax fi mu nekk nii yaakaar naa ne par benn benn yu dugg ndax ñu waroon que presque euh, na ñu xam naa ci des dañuy xaar bu ñu añee ba pare dem voté ji. Euh, man maay plénipotentiaire départemental bu coalition Idy 2019. maa ngi indi ànd ak coordonnateur départemental bu comité électoral bi muy monsieur Ardo Fall donc depuis ce matin ñu ngi def tuuru centre de vote yi waaye Dieu merci yàlla baax na ñu ngi sant suñu borom euh, affaire daal mu ngi déroulé wu normalement waaw centre yi ñu def yëpp apparemment amul problème. non no non à part que am nañ cas yu ñu signalé woon à muy ñaari nit ñoo xam ne dañu waroon voté si. nekk ci fichier bi nga xam ne moom la président bureau de vote bi yor. ak bu SEDA mais nekkul ci fichier bi nga xam ne moom la représentant parti yor donc loolu muy poser problème mu fichier bi toujours rek c'est c'est c'est un problème national foog naa wax nañ ko léegi ci rajo bi mais en dehors de cela vraiment euh, vote bi daal mu ngi déroulé wu normalement ba fi may wax ak yow nii def nañ centre yëpp presque euh, ak délégation bi mais vote bi mu ngi déroulé wu normalement. waaw yaakaar bi ñu amoon moom lañ gën a am tey parce que liggéey nañ euh, suñu candidat liggéey na. ñun tamit liggéey nañ au niveau départemental li ci des nak moy suñu nit ñi ñu ngi fexé ñu ngoom ñëpp ñu ngi voter ci ah mais li ci des ñu bayiko ci loxo suñu borom rek. xaar xaar dogal bi à partir de 18 heures. Euh, asalaamaaleykum euh, wa Sénégal yëpp asalaamaaleykum euh, mbokk Mbour maa ngi nuyu ñëpp man maa ngi tudd Bougar Diouf nekk président mouvement patriotique pour la République bokk ci coalition Sonko président au niveau de la conférence des leaders. bon man bu ma sa nuyoo ñëpp li ma ciy teg daal mooy vote bi daal ni mu déroulé nii euh, macha allah gis nañ daal jàmm am na euh, coow lu bëri li sax liñ ci doon dégg yàlla def na ba nga xam ne ci euh, élection ci du réellement le jour là li ma doon kii waaw gisuma ko franchement te affaire bi gaaw na aussi macha allah gis nañ que ne aussi wàllu kaaraange bi mu ngi fii nit ñi ñu ngi si jàmm yal na yàlla daal affaire bi jeexee ni incha allah.